ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد ودود كلي أبدا بالود ودامني أدر وكد السلام عليكم بوكي تلا الأربعة ñetti fan ci weeru tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak ñaar ci gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa dëppoo fukki fan ak ñeent ci weeru juillet ci atum ñaari junni ak nit ak benn ñetti fan dafa bokk ci lim yu fatt yi kon tey ci àllarba ji rafetul ci dara ñaanu bis bi allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allahu akbar akbar walillahi alhamd muy kàbbar yi nga xam ne moom la def ci fukki fan yi njëkk ci tabaski xadisu bis bi an abi hurayra qaala qiila li rasulillahi sallallahu alayhi wa ayu nisaai xayr jëleef na ci abi hurayra yàlla na yàlla gërëm ko mu wax ne waxoon nañ yonente bi yàlla bi ne ko ban jigéen moo gën ci jigéen ñi qaala allati tasurruhu ida nadara wa tutiicuhu ida amara wala tuxaalifuhu fi nafsiha wa maaliha bi ma yakrah yonent bi tontu ne jigéen ji gën ci jigéen ñi mooy ji nga xam ne bu ko boroom këram xoolee bég bu ko digalee mu def te du wuuteeg moom